asalaamaaleykum ñu ngi nuyu bépp auditeur u Rewmi FM ñi nga xamante ni saa su nekk dañuy ànd ak rajo bi di Rewmi FM Dakar quatre-vingt-dix-sept point cinq rawatina seen émission euh, sociale toute la ville en parle samedi bu jot dix heures jàpp onze heures ngeen ci dey ak Ndeye Comba Moreau tey ji seen émission sociale toute la ville en parle euh, dalal Mamadou Niang chargé des revendication bu association nationale des accidentés du du travail et leurs ayants droit ñu fas yéene waxtaane solo si nga xamante ni euh, santé ak sécurité am na ko ci euh, bërëbu liggéeykaay problème yi nga xamante ni accidenté du travail yi ñu ngi koy faral euh, di jànkonteel file ci Sénégal taxawaayu caisse de sécurité euh, sociale IPRES ak yeneen i ponk yu soxal mbir moomule daañu ko waxtaane ak kili di suñu invité Mamadou Niang ñu lay nuyu di la dalal jàmm salaamaaleykum jërëjëf Ndeye Comba maa ngi lay gërëm di la sant di gërëm euh, waa rajo bi yëpp. Mm-hmm. di la remercier ci sa invitation. Euh, di ñaan yàlla lépp loo xamante ni euh, wax nañ ko fii yàlla na jëriñ ñëpp. te ñu xam ne du rek pour defar rek moo tax a jóg mais defuñu dara taxul da jóg pour pour association bi et que nit ñi xam aussi les accidentés nan la ñuy dundee fii ci Sénégal. Mhm. mi ngi noonu ñu ngi lay remercier bu baax a baax mhm. ci sa disponibilité association nationale des accidentés du travail et leurs ayants droit mhm. lan moo tax ngeen euh, sos ko ak ban at at ngeen ko sos exactement waaw ndekum ba jërëjëf euh, maa ngi lay gërëm si question boobu c'est vrai que association nationale des accidentés et ayants droit ñu ngi ko sos en 1973 yaakaar naa ni boobu Euh, man ak yow ñu bare yaakaar naaw ni boobu juddoogunu sax mhm. donc ay mag ay kilifa ñu ñu ñoo ko sos nekk si di si liggéey ba tey parce que mhm. association bu def euh, autant d'années war mhm. nga xam ne association bu solide la te ñu ñi ko sos tamit ñu am ay valeur lan ñu bëgg seen bopp bëgg seen liggéey parce que boo déggee ñu ngi tudd association ñu ngi koy ANATAD association nationale des accidentés du travail et des ayants droit et des ayants droit parce que aussi accident du travail dafa am aussi ce qu'on appelle maladie professionnelle. Mm. ñoom ñoo bokk aussi. ayant mm-hmm. droit yi mooy les veuves ñoo xamante ni euh, dañ doon dem liggéey dafa am doomu aadama yoo xam dañuy xëy di liggéey. Mm-hmm. baal ma. Mm-hmm. xëy tàggu sa waa kër ni maa ngi dem liggéey dem ba si yoon bi wala xëy ñu woo sa jabar ni la ah ku ko doon liggéeyee wàcc na loolu ñooñu euh, mu nekk lu lu metti loo xamante ni ñoom dañ koy dañ ko dafa am ñu koy dund. ñooñu la ñu woy un léegi ñu war a jël ñoo ñooñu seen ay droit ñu war leen ko jox mm-hmm. war leen defal ay ndàmpaay war leen defal ay suivi mm-hmm. surtout pour njaboot googu ndax njaboot goo xamante ni am na ku ko téye téewoon comme li ñuy wax mooy pilier bi mm-hmm. yàlla def mu nekkatu fi danga ko dafa nekk ñoo xamante ni dañ leen war a yii dañ leen war a di leen téye yàlla def nag euh, association bi loolu ñu ngi ko créer pour loolu pour toppatoo pour dimbali ñooñu. yaa droit yi nag euh, pàpp sax ak yaay si la bokk parce que bu fekkee da nga am doom mu téye la bu fi jógee aussi dafa war a am si ayant si droit la bokk dafa war a bokk si ñu war a bénéficier si sa si sa si sa rente bi nga am si prise bi nga am prise en charge bi ñuy wax sax daanaka amut rente moo am rek parce que boo déggee ñu naan prise en charge euh, mooy rente bi chaque ñetti weer ñi chaque weer ñu am lu ñu la jox mooy nàmpaay bu ñu la jox. Mhm. voilà loolu moo si loolu moo fi nekk léegi lan mooy euh, accident du travail exactement mooy accident boo xamante ni mu ngi am su moment bi ngay def sa liggéey ci sa heure de travail. comme par exemple. comme nga xëy di liggéey génn sa kër 6 heures du matin nga xëy di dem di liggéeyi de 6 heures à 16 heures sa heure de de de 6 heures par exemple nga génn 8 heures 16 heures mooy 8 heures de temps nga war a liggéey. Mhm. mais boo xasee ba génn 6 heures nga du matin dem di xëy di liggéey rek ci sa heure de travail la bokk. Mhm. parce que yooyu bu fekkee da def accident. au cours de la route dañ koy considérer comme accident de travail. ak accident nu mu mënti demee la fait que nga jógee sa kër jëm sa bërëbu liggéeykaay jëm sa bërëbu liggéey kaay nga accidenté kooku accident de travail la. Mhm. le fait nga wàcc 16 heures di ñibbi sa kër aussi balaa nga yegg sa kër tamit loolu accident de travail la. Mhm. généralement aussi day nekk ay problèmes yoo xam ne ni moo tax caisse de sécurité sociale bañ na dafa am ay ñoo xam ne def ay enquêtes. pour xool ndax ba nga génnee heure bi nga def accident bi hmm. ba nga génnee heure bi nga dénk ba nga dugg hmm. ndax loolu yëpp est-ce que war na ko couvrir est-ce que war na ko couvrir ou pas waaw donc loolu dafay am ak tamit accident bi nga am si sa bërëbu liggéeykaay wala accident bi nga am waaw ba nga boobu tamit accident bi nga am sa bërëbu liggéey moment bi ngay def sa liggéey moment bi nga def sa liggéey nga def accident boobu tamit boobu ci accident de travail la bokk même bu nekkee sibiti ak moment bu mu neex mooy entre boobu entre heure bu mu neex noonu hmm. boo defee accident rek accident de travail la la nga koy leen koy wooyee mais bu fekkee liggéeykat bi mhm. euh, c'est vrai mi ngi si entreprise bi di liggéey mhm. mais dafa accident accidenté dafa xëyoon di dem feneen est-ce que loolu euh, société bi daf koy couvrir waaw wala déet. déedéet waaw bu fekkee dafa xëy di dem. feneen dem feneen dem ngénte. wala dem feneen wala doxe ay soxla ay soxlaam mu accidenté. Mhm. du ko du ko même bu dee travailleur la du ko. même du ko couvrir duñ ko tuddee accident. duñ ko tuddee accident travail généralement. moo tax ñoom dañoo am seen ay inspecteurs. Mhm. bis boo ko déclaré ñoom dañu def enquête euh, dama jël sama exemple. man ba ma def sama accident euh, caisse sécurité sociale danoo envoyé. ay enquêteurs. nu mhm. ñëw ba bërëb bi laajte def seen rapport dem ba si machine bu ma defee accident ñu xool c'est comme ça toujours def benn rapport bu exact xool teg si encore même sax dañuy dem di xool ndax yow accident bi société bi am na si responsabilité wala ndax am si responsabilité parce que loolu yëpp da siy aussi parce que bu fekkee société bi aussi moo la yónnu am ñoo xam ne dañuy nekk heure pause mhm. wala heure leneen Euh, wala dara. bu dee heure pause duñ ko couvrir non non heure pause dañ ko couvrir. mais nga nekk heure pause nga nekk dara saa rek nga ne xaaral ma génn. dem doxi sa yooyu. yooyu yëpp dañ koy xool bu fekkee loolu aussi nekkul accident travail parce que euh, sa sa sa kii sa waa sa waa service dañ naan. bokk woon bokkul woon si heure bu mu waroon liggéey. Mhm. donc loolu si la moo tax euh, accident de travail. dafa dafa laaj enquête. Mhm. dafa laaj des rapports dafa laaj lu lu bare loo xamante ni caisse sécurité sociale da koy laajte ba pare. balaa ñuy ñëw balaa ñuy mën a ñëw ci prise en charge bi. léegi balaa ñuy ñëw ci leneen. bala ñuy ñëw ci prise en charge bi. Mhm. léegi lan mooy euh, maladie professionnelle. maladie professionnelle mooy comme léegi dafa xaw a bare sax. parce que mhm. léegi boo xoolee. ñu ngi liggéey par téléassistance. Euh, mhm. euh, télétravail télétravail de moins. dañuy toog sa kër di liggéey ordinateur bi ngay liggéey boo ci liggéey ci ordinateur bi di liggéey di liggéey ba am sa feebar di me am feebaru bët. Mhm. loolu maladie professionnelle la. parce que ordinateur bi la ko yóbbu. ordinateur moo la ko yóbbu nga xëy di liggéey ba am ñoo xam ne dañuy liggéey fu ñuy liggéeyee bruit bi jàppaleen machine bi stress bi nga dem ba tàqali ko sa xel kooku maladie professionnelle la. Mhm. am ñoo xamante ni nag. dañuy dem dañ bu ñuy liggéey sax dañuy lakk wala dara yooyu yëpp tey maladie professionnelle la mais doo leen gis nii am xam ne dañuy accidenté man j'ai vu mhm. euh, koo xamante ni. Mhm. dafa def accident si yoon bi. Mhm. boo ko gisee da nga yaan accidenté wul cëram yëpp mat na mais dafa def traumatisme. dafa def choc si bopp bi. am problème psychologique am problème te kooku tamit da nga ko war da nga koy considérer comme accident de travail te ñoo ñëpp dañu bokk ci prise en charge d'accord te maladie professionnelle mooy bépp liggéey boo xam ne euh, ci sa bërëbu liggéeykaay nga ko jëlee. nga maanaam ci ni ngay defee sa liggéey. nga ko jëlee comme nga ñëw di liggéey ordinateur. ba ba sa bëti am problème. loolu dañ koy jàppee comme maladie professionnelle. mais comme ça euh, euh, comment dirais-je ki nga xamante ni dafay liggéey. Mhm. jékki-jékki génn rek oto dal ci kawam. Mhm. fi mu taxaw ci arrêt bi scooter dawul ci dal ci kawam ainsi de suite mu def choc loolu ci accident du travail la bokk. si la bokk bu génnee bu fekkee. Mhm. lu mu génn c'est dans le cadre professionnel. Mhm. xam nga génn cadre cadre fonctionnel parce que toog sa bureau ba mu neex la nga génn rek dem naan benn café wala xam ne fa xam c'est pas c'est pas dans le cadre professionnel. Mhm. bu fekkee c'est dans le cadre professionnel kooku accident du travail la. bu fekkee c'est pas dans le cadre professionnel du accident de léegi nga war a liggéey par exemple mhm. euh, tey la tey la tey la jóg yaa ngi war a yegg quinze heures waaw nga ne xaaral tey ma quitté douze heures wala treize heures comme def crochet fële waaw si sama banque am lu ma fa retiré su ma fa jógee mhm. dem sama bërëbu liggéeykaay mhm. ci diggante boobu nga def fa accident est-ce que accident de travail waaw loolu yëpp enquête moo koy déterminer parce que boo xoolee heure bi nga génn dem banque xam nga jógee sa xër xëri liggéeykaay nag naan da ngay dem banque ça n'a rien à voir ak sa liggéeykaay mhm. boo demee xëy di liggéey lañu wax nga xëy di liggéey mhm. boo demee di liggéey xëy na mën nga dem ba sa liggéeykaay sax ni sa patron mu defal la benn billet parce que souvent moo tax dañ ko def ci entreprise bi la billet de mhm. billet de sortie billet de sortie jox ma billet de sortie da couvrir waaw da couvrir pour en cas waaw dañuy couvrir en cas d' accident. Mhm. loolu tamit dafa am solo maanaam diggante mhm. bi nga jógee sa kër dem banque. duñ la couvrir. voilà du la couvrir moment bi nga jógee banque war a dem sa bërëbu liggéeykaay bu dee choc am na foofu war nañ la couvrir. waaw bu fekkee bu am da am papier parce que mhm. loolu yëpp si ci ci couvert. mooy lu lay lu lay lu lay moo koy déterminer rek. généralement ni day def choc yor yor biir sortam si poche wala mais euh, yooyu yëpp lu koy indi mooy bu enquête bi déterminé te généralement buñ ko defee ñoom waa kees dañuy am ay nit ñoo xam dañ koy def comme nu mu la wax. Mm-hmm. ñu def seen enquête ñu wane ni lii accident de travail la. voilà moo tax loolu lu lu lu léegi en cas d' accident de de travail. Mm-hmm. Euh, comme ça ñu déclaré tel liggéeykat. Mm-hmm. am accidenté na c' est un accident de travail. naka lay demee exactement ba keroog ñu war ko jël en charge la prise en charge naka lay demee. Euh, def liggéey boobu. la euh, bu fekkee dafa am nit dafa accident de travail. Mhm. Euh, l' employeur da ko war a déclarer dans les quarante huit heures. Mhm. nit def na accident de travail. bu ko def bu ko defee. c'est l'employeur l'employeur kon ku la jël moo ko war a. déclarer du liggéeykat bi moom mooy bi parce que liggéeykat bi munoo dem accidenté par exemple man am accidenté am naa amputation loxo. Mhm. tëdd hôpital. mun na maa génn. Mm. récemment dal na ma caisse sécurité sociale je parti ma dem am lu ma fu mujjee dem ma gis benn xale bu ndaw accidenté dafa sonn xam naa dafa accident bi métti na mais maa ngi koy gis mi déplacé wu difficilement ak ay béekeem pour dem di wax ak euh, benn femme pour mu pour mu gindi ko. Mm-hmm. xam nga yooyu c'est des choses yoo xamante ni je me dis que c'est pas humain. Mm-hmm. parce que nit ki bu fekkee dafa def si yow si si sa bureau def ñu sa service def nga koy liggéeyloo mu def accident normalement. yow da ko war a même boo ko mën a ut sax nga utal ko oto bu ko yóbbu war nga utal benn taxi topp ko am koo ko booleel. Mhm. mu dem mu mu dimbali ko assister ko parce que loolu dafa nekk loo xamante ni euh, je me dis que c'est pas une question de de travail question d'humain nit da war a parce que bu nekkoon sa rakk wala bu nekkoon sa mag doo ko def. Mhm. juste donc moom moo ko war a déclarer. dans les quarante dans les quarante huit de sécurité caisse de sécurité sociale. Mhm. jóg def ay enquête bu defee enquête ba pare caisse de sécurité sociale après da koy moom mooy fay après. lépp la koy jël en charge wala. lépp normalement lépp moo jël lépp en charge moo jël parce que moo war a fay euh, au niveau de l'hôpital moo war a fay hospitalisation hospitalisation yi analyse yi moo war a fay lépp ba ba si bu demee ba wér moom le médecin de la caisse moo war a def. Mm. certificat de guérison mm. moom mu jël ko yóbbu ko au niveau de de son entreprise. entreprise médecin bi fa nekk daal di koy valider muy doga a reprendre son travail. léegi léegi euh, prise en charge wu caisse de sécurité sociale day nekk lu automatique sur le champ euh, la ñuy ñëw jël la en charge wala dañ naan la fayal ba pare boo paree ñu rembourser la comment ça se waaw loolu généralement. Mm -hmm. euh, ça ça dépend même bu fekkee l'employeur jël na ko en charge mais après. day nekk loo xamante ni c'est des c'est des c'est des remboursements. Mhm. ñoom dinañ ko mën a rembourser donc employeur bi mooy fay. après caisse de sécurité sociale après koy daal rembourser. mais boobu dafay fekk liggéeykat bi. ñu mhm. ñu déclarer ko ñu régulariser ko. non non non régulariser ko dafa toll foofu ñu ngi toll pour faj. <laughs> ñu toll pour euh, pour. maanaam mettre mettre ko à. Euh, même bu fekkente ni liggéeykat bi amul contrat amul dara. côté boobu lay ah, waxee. ah non nit non liggéeykat bu amul contrat. Mhm. caisse sécurité sociale du la sax déglu. du la sax lijjanti du la sax lijjanti. caisse de sécurité sociale du lijjanti. Mhm. liggéeykat bu amul contrat. jeex na parce que da ngay cotiser. Mhm. caisse de sécurité sociale tu cotises. boo demee sa bulletin xoolal dinga nga gis fu ngay def cotisation CCCSS. caisse de sécurité sociale. Mm-hmm. damay am habitude da du leen wooyee. dama leen tuddee sax caisse sécurité sociale dama leen tuddee caisse de souffrir en mm-hmm. ndax ñu fa nekk dañuy sonn sonn ba man dama leen tuddee caisse de sécurité caisse de souffrir en mm-hmm. mais boo xoolee sa bulletin mii keneen ak mën keneen. da ngay gis sa bulletin dañ si bind caisse de sécurité sociale. donc travailleur bi nga xam ne amul contrat bokk ci. bokk si. donc duñ la sax déglu. duñ la jëluñ ko en charge. non non xamuñu ko sax. xamuñu ko déedéet. non non lijjanti la boobaa yaay faj sa bopp. yaay dem xool sa bopp bu fekkee amputation nga am yaa uti sa bopp appareil na fii bare na nekk si garage di gaañu wala dara. Mhm. généralement da ngay gis da ngay dem si mécanicien bi di defar sa oto wala dara mu gaañu. Mhm. day faj boppam. Mhm. après jeex na. après caisse sécurité toppatoo caisse sociale institution boo xamante moom lu comme on ay këyitu leer Mhm. di cotiser. normalement employeur bi di cotiser employeur bi di cotiser normalement. boo cotiser wu normalement aussi mën nga am problème. Mhm. ñoom dañu ngay cotiser normalement parce que employeur bi moom moo lay cotiser. Mhm. waaw yow cotiser woo si mais day dagg si sa. si sa salaire di la cotiser di la cotiser ba sa salaire sax mais moom moo ma ko jël en charge. parce que c' est l' employeur moom mu jël en charge le pour les accidentés pour pour pour. donc processus bi noonu lay demee noonu lay demee. su ko defee euh, su boobaa. Euh, caisse de sécurité sociale daañu la faj. ba nga wér ba ñu attesté que yow wér nga mën nga dellu sa bërëb liggéeykaay wala wér nga mënatoo liggéey parce que am na ñoo xam ne euh, seeni accident mhm. euh, fa la ñuy jógee mhm. dootuñ mën a continuer seen liggéey waaw xam nga loolu aussi am na liggéey yooyu liggéey Euh, soo defee yenn accident au mhm. travail mhm. yaakaar naa ne liggéey yooyu dootoo ko mën a continuer léegi naka lay demee est-ce que dinañ lay euh, dinañ fay accidenté bi ay droit ainsi de comme ça nga gis ko am euh, trente cinq ans mhm. mu doon liggéey peut-être mu ñàkk ay loxoom wala ay tànkam ainsi de suite type de travail bi mu doon def mënatu ko continuer def est-ce que boobu liggéeykat bi dinañ ko fay ay droit am waaw wala déet naka lay demee. dégg nga da nga question bu am solo. question la boo xam ne dama si sawar a tontu. Mm-hmm. ndax danga mel ni danga mel ni ko xam un peu man li mu dund ak ñu bari lu mu dund. Mm-hmm. da ne am 30 ans ku mel ne man am accident. 30 mm-hmm. ans nga perte euh, xam nga gis nga accident bi nu mu mel. lu bare wàññeeku si yow. léegi yàlla def yàlla moo ko def ah nga accidenté mm. ñoom ñu jël la caisse sécurité sociale yóbbu la hôpital euh, kii xam nga rek généralement Sénégal moom noonu la mm. boo defee accident rek ku nekk wax fii nangam nangam nangam ñu nekk si boo paree mm-hmm. normalement employeur bi ba ne kii la ba ba caisse sécurité sociale moom pour vivre du la jox caisse sécurité sociale àndul tag yow leful leen lu lu jox la rente mm-hmm. du la jox dërëm il faut mu leer mm-hmm. caisse sécurité sociale la lay jox luy rente mooy bu fekkee faju nga ba wér am sa certificat de guérison dafa am ce qu'on appelle IPP euh, indice euh, kii euh, IPP ñu ngi koy waxee euh, kii perman euh, incapacité permanent partielle mm. noonu la ko tuddee médecin bi moom moo koy déterminer mooy xool ni kat Mamadou mii kat loxoom bi def na lii mënutul lii ak lii am na incapacité vingt pour cent. Mm. quarante pour cent cinquante pour cent si loxoom. mooy mm. incapacité boobu. Mm. loolu la ñuy jël ñu def seen calcul ni rentre bi temps la léegi bu fekkee da nga ñëw sa rentre buñ la defal mooy sa incapacité boobu. dafa nekk dix pour cent ñoom danaan la am nga dix pour cent dañuy xool par rapport ak li nga doon fayeeku sa salaire ba nga doon fayeeku. 10 mhm. pour cent bi ñu def seen ay calcul ñoom. waa de sécurité def seen ay formule seen calcul. daani ni yow am nga chaque 3 mois 20 000 francs wala 30 000 francs. chaque 3 chaque 3 mois. du nekk deux chaque trois par mois moo am. bu mhm. fekkee da nga am plus de soixante quinze pour cent. si sa IPP mooy sa incapacité. Mhm. permanente comme li nga wax bu fekkee accident bi grave ba ñu def la cent. da ngay am par trois mois. Mm-hmm. léegi par trois mois yooyu dal par plus de cent pour cent da ngay am par mois. par si. si incapacité waaw fi sa fu mu toll. Mm-hmm. noonu lay demee mais après moom loolu lay jox kes pare na ak yow. chaque mois nga fayeeku ko. chaque mois non chaque trois mois nga fayeeku. ñii chaque mois ñu fayeeku. Mhm. waaw chaque nga fayeeku ñii chaque mois nga fayeeku. léegi ak entreprise bi su fekkee sa da ngay dem obligé. toog sa kër bi da ngay dem toog sa kër ñoom ñooy xam boo ñëwee am na entreprise yoo xamante ni dañuy ñëw ñu defal la toppatoo la te utal la foo nekk di la mhm. am na entreprise yoo xamante ni su ëpp nag sunu mbokk tubaab yeeg yooyu. Mhm. Euh, tubaab bi ngay defee accident généralement day nekk tubaab boo xam da bëgg xam nga tubaab moom day bëgg toppatoo ak yooyu. Mm. mais il suffit direction bi changé wala leneen changé rek yow da leen di gêner. comprendre nga baax fa ma. maanaam. Mm-hmm. bu bi changé wala dara da naan kii da ko defoon ay privilège privilège yi nag dafa dañ. Mm-hmm. parce que am na beneen directeur. directeur bu bees. Mm-hmm. moom day am ay accidenté en quelque sorte. ñoo xam ne tamit da leen di toppatoo. moo tax généralement. boo gisee ñuy am ay jafe-jafe loolu la jafe-jafe ju bari di am si accident de travail. Mhm. te boo xoolee kan moo war a lijjanti loolu ak kan moo leen war a. Mhm. Euh, di di contrôler. parce que problème bi si gën a metti mhm. euh, li tax ma poser la question bi dikk nga xamante ni accidenté na caisse de sécurité sociale jël ko en charge mu wér. ba delluwaat ci bërëbu liggéeykaayam continuer di liggéey parce que peut-être amul euh, physiquement euh, lu ko teree def liggéeyam mu ngi continuer di def liggéeyam comme avant weer dee ñu fay ko mais ki nga xamante ni Euh, accident de travail bi daf ko yóbbee ab handicap ba mënatul def liggéeyam. donc kooku dafay dem daal di toog këram. Euh, daal di yem ci rente bi nga xamante ni moom la ko caisse de sécurité sociale di jox ci lay yem. ci lay yem léegi entreprise bi lan lay def pour. Euh, en cas d' accidenté du travail. lay def pour ce type d' accidenté. waaw moo tax ma la accidenté bi kooku boobu. boobaa entreprise bi xam nga caisse de sécurité day ñëw wàccoon na ak yow. pare na si. day ñëw jox la ni chaque 3 mois am nga 20 000 parce que su man gis naa man maa ko gis koo xamante ne accidenté sans dans mon service sama kanam. Mhm. tànk bi moo dagg xale bu 21 ans. 150 000 am par 3 mois. par 3 mois ñu fay ko. fay ko 150 000 donc 50 000 francs xale bu naa papaam xamoon naa yaaram. Mhm. mu jógee dëkk ba ñëw nijaayam indi fi muy liggéey ñu dagg tànk bi. machine bee ko dagg si man naa taxaw. ban machine moom moo dagg tànk moo dagg tànk bi. am na ñoo xamante ni seen loxo moo dagg mais yooyu ñëpp boo xoolee. caisse sécurité sociale dañ naan la demal caisse boo demee ñoom lu nu mën si yow ah pare nañ si yow jox na la chaque mois deux trois mille quatre mille cinq mille jeex na. léegi après entreprise bi. entreprise bi amatul lu muy xool bi. pare na si pare na si lu si donc pare pare si booy day xool diggante moom ak boppam ak yàlla. Mhm. parfois ñu jëlaat la. parfois ñu parfois ñu jëlaat ko. bu fekkee da nga nekkoon benn journalier dara. looloo xamante ne parce que loolu laa doon loolu laa doon wax. Mhm. am naa si ñaar ba ñett ñoo xamante ne ay journalier la woon. Mhm. ñu ngi foofu dàq na leen ñibbi nañ kenn ki dem na bay kenn ki mi ngi toog këram te bu yàggee nga doon liggéey fenn ba loolu dal la mais après yow xam nga comment ça va faire. Mm-hmm. dafay metti si nit. mooy ñi parfois ñi dem bay drogué wu nit di def defi leneen. Mm-hmm. parce que c'est des traumatisés. ñooñu ay mais yow personnellement euh, euh, mën nga ñu nettali sa expérience en tant que accident du travail noo ko dundee. waaw qu'est-ce qui s'est passé exactement. Euh, Nékumba. Mm-hmm. boo waxee bu nu waxee bu nu waxee dëgg. Mhm. accident travail dafa metti dan naan booy seen nit ku gëm yàlla demal demal caisse sécurité social ndax man su fekkee man nu ma koy expliquer man mooy def accident xale laa trente ans laa. Mhm. yàlla def ma xëy di liggéey machine bi jàpp sama loxo ñu yóbbu ma principal ñu amputé samay baaraam mais sant yàlla aussi. Euh, ñu ma encadré woon jamono jooju comme moo di dafa nekkoon ak direction bi fi nekkoon nu jàppale ma ba wax dëgg yàlla metti woon na ndax yow gis nga sax def accident dafa metti dafa metti déjà dafa metti déjà mm. nga war ko dund traumatisme boobu traumatisme bi sa famille say doom mm. et tout amoon naa benn directeur bu tudd monsieur monsieur Lionel Vilpontou mhm. dafa amoon benn doom bu ndaw bu góor mhm. bu musaa ñëw euh, service bi bu ko indee su ma ko nuyoo bu ma ko nuyoo sama loxo day daw xal bi day daw mhm. daf da ko doon euh, da ko comme ni da ko doon trop da ko doon da ko doon choqué ko ba benn jour sax papa tuuti mu dóor ko parce que lu tax xale bi daw ak yooyu juste pour dire que yooyu yëpp da nga koy dund mais après ba mu accidenté ba mu ba mu kii après direction bi jàppale na ma. Mm-hmm. mais ban na jàppale aussi ba benn instant xam nga accident boo xoolee dañ naan ni nga mel doo ko melaat yow xam nga si dara. Mm-hmm. day am. ay séquelles yu muy ay yi génn. Mm-hmm. yu bare yu muy ñëw. muy man ak sama moroom bu fekkee da nga yàlla da la dimbaliwul rek. boolewul laak direction bu comprendre si sa cas wala moom mu gis peut-être cas loolu wala direction bu xarañ bu mën a liggéey généralement rek yow da ngay am problème. Hmm. man c'est ce qui s'est passé avec man. dama dem ba benn instant direction bi danoo am ay problème parce que gis na ni xëy na man j'en faisais trop. Hmm. wala gis na nu man damay abuser si certaines choses fekk. accident moo nekk loo xam dafa metti dafa nekk loo xamante ni nit da nga ko a soutenir da nga nekk nii nga xam da war a jàppale parce que moo tax boo xoolee entreprise yi sax fii la même en France dana la war a am ce qu'on appelle des psychologies. Mm. des psycho des psychologues yu la lay topp mais entreprise amuñu ko. je vous dama la jox benn exemple. Mm-hmm. pour di accident ni mu méttee. te na mu ko dundee ma sama bos ni mu méttee dama toog sama kër ma am vent comme quoi que dafa am benn élément bu nekk sédiment standard. Mm-hmm. benn expatrié la loxo bi la machine bi jàpp dagg ko comme man nii. ba mu ko defee après man ma ñëw kii wax ma ko au niveau de ñu wax ma ko ba mu amee information bi. Mhm. man ma dem jël sama propre moyen ut sama paas dem seeti xale bi fu mu nekk parce que il avait vingt cinq ans trente mhm. ba ma demee seet ko. ba mu ko ba mu duggee parce que ba mu duggee déjà dama dugg laajte ko ñu ni che malade bi daal daf ñu sonal mi ngi yuuxu rek. Mhm. ba mu duggee seet ko waxtaan ak moom dama ko defoo ce qu'on appelle remontée psychologique boo xamante ni ma ma jàpp ni tey man expérience bi ma am si accident dimbali naa te am na ku ma dimbali ba tubaab bi tubaab la de dem na ba Suisse. Mm. di ma woo téléphone. Mm. mais après ñoom day am suivi. day am suivi psychologique assistance mm-hmm. di la dimbali. financièrement financièrement di la topp parce que dañ naan nit ku fi accidenté dañ koy wax sax ñoom au kees amul dara lu la mën na jox hmm. nit ko tànk tànkam dagg da nga ko mën da nga ko mën delloo tànk nit ko noppam dagg da nga mën na loo mën lu di ko nàmpaay hmm, compensation mu mu ki mu si am loo xamante ne dana sentir teg si entreprise aussi jox ko cër di ko toppatoo di ko seet di xool si lu mu nekk parce que yooyu dafa am solo man je vous dis que am na sama loxo metti na ma dem seet direction bi ba ma duggee hmm. mais direction ma pas dama dugg dan ma boole vigile yi moom di fay les courant. daw boole ak vigile pour la. pour ñu génne ma si boobu yaa ngi doog a wér. non non boobu dama liggéey sax ba arrêté. Mhm. toog ñun ma dama ko toog ma dem toog toog tuuti ñëwaat pour gis directeur bi pour waxtaan ak moom. Mhm. am naa moyen parce que xam naa usine bi daf fa 17 ans. Mhm. ba ma ñëwee si bureau directeur mais dafa woo vigile yi jàpp ma am dóor lu nekk am naa certificat médical plus de 7 jours. pour lan. takk dóor yi ma dóor génnee ma sànni ma sibiti mais pour lan ñu def la loolu. parce que euh, te dama ñëw ni que dama je veux le voir pour waxtaan a moom directeur bi mais juste pour dire que gis nga ñoom ni ñuy réagiré. Mm-hmm. mais loolu yëpp boo gisee lu ko waral mooy sama expérience te yaa na d'autres ñoo xamante ni ñoo ma gën a compliqué. yan yan yan moo la ci gën a euh, yan cas benn ñaar ci ci biir association des des accidents. am na am na am na euh, am na benn koo xamante ni tànk bi moom laa la xale la. 21 mhm. ans papaam ak yaay moom rek la ñu yaakaaroon. ñu dagg tànk ñu dagg tànk bi. xale bi actuellement boo xoolee euh, dafa mel ku xaw a da ngay mel ku perturbé wu. Mhm. parce que accidenté c'est comme ça. Mhm. bu yàggee day metti waaw day mel ni perturbé wu kooku benn cas la am naa si beneen cas boo xamante ni kooku. benn usine euh, kaw si loon liggéey fii route de Rufisque mhm. usine bi sax après tëj na son dossier euh, toujours à la caisse de sécurité sociale démb rek ba may ñëw fii loo mu moo duma ko wax ba léegi actuellement kooku kenn fayu ko au niveau de la caisse de sécurité sociale am na des accidentés yoo xamante ni ba léegi kenn fayu ñu leen kenn fayu leen seeni droit seen droit mais tamit dañuy wax rente bi dafa tuuti rente bi naka lay demee yan yan somme ñi si gën a néewle ñaata la ñuy am. ñi si ëppale ñaata la ñuy am 17000 gis naa 14000. par 3 mois par 3 mois. am na ko ma mujjee gi 17000 la génnee may ko sama 2000 francs may ko par 3 mois. ñu jox la ko ñu jox la ko. imagine nit ku perte ay baaraamam nga jox ko 17000. dama jógee foofu dama woo ñu ma war a woo si direction boobu. Mm-hmm. ni leen dimbali leen kii ngeen embauché ko. am na ñaari jabar ndax ya frère am dafa gaañu mu jël ay doomam 17000 francs lay fekk par mois mais loolu c'est humain nit ko am xol moo koy def mais boo amul xol doo ko def yooyu yëpp dafa am 17000 yi 20000 am na 30000. dañ leen di jox pas 3 mais am na jigéen ñoo xamante ne dañoo pet seen ay doom dañoo perte seen seen seen jëkkër dégg nga mhm. yàlla def ñu leen ñu defar seen këyit lu gën a jafe nag. nga defar kayit yi déjà. Mhm. xamoo foo jëm. c'est tout un problème tout un problème. dem kees ñun la jaaral fee demal fee utal bii kayit utal nii da nga koo xamante ni yoroo dara nga nekk di kët kët ba ut boo amee ba pare jigéen bi ñëw. déposé déposé sa jëkkër dafa gaañu. Mhm. gaañu na li nga amoon amatoo ko amoon nga sept ba huit gos après où sont xale yi ni def. lu ñuy dundee nan la nuy dundee léegi xale yooyu après léegi nan la lañ war def pour que caisse mën a sécurité sociale rek wala a jël en charge pour mu jël en charge. xale yi tout c'est tout un problème parce que xale yi déjà il faut ñu am benn âge bi da jël de un à quatorze ans à un de à quatorze ans da war a indi certificat de scolarité pour wane xale yaa ngi jàng wala certificat d'apprentissage. Mhm. pour ñu mën leen mën a xale yi pour pour pour pour rentre bu sa yaay di jot par exemple bu sa yaay doon jot cinquante mille bu ñu ba xale yi xam ne am na quatorze ans rek dañuy wàññi rente bi léegi il faut bi indi. ay il faut ngeen ay certificat de scolarité wala certificat d' pour wane xale baa ngi. jàng wala xale baa ngi jàng métier. xale bu toog génn si biti fii di di liggéey si mécanicien bi. Mm. mécanicien da nga mën certificat d' apprentissage. non école bu nga war a jëm pour caisse sécurité sociale mën la fay xaalisam école boobu aussi reconnue par la caisse de sécurité sociale. Mm. donc ce que veut dire condition yu métti. yu compliqué. yu métti lan lay da moo tax da ngay ba da ngay da ngay dem yéen famille am doom. Mhm. ñu bari demuñu demuñu récupérer seen xaalis. ñi accouché ñi accouché ñu bari récupérer wuñu seen xaalis lu tax récupérer. lu tax condition yi leen di tegal la. te yaa koy cotiser boo demee sa bulletin sama bulletin mii yow di keneen ak keneen boo demee xool rubrique am na caisse de sécurité sociale. ñii mm. 7 pour ñii pour cent xaalis bi ñun ñoo ko cotiser c'est notre argent ñoo ko moom mais condition yi lay tegal mooy metti ba tax doo dem jëli sa xaalis doo xam ne moo tax ñu naan am revendication même boo xoolee aussi même les femmes. lu si gën a garaaw ñun dëkk jullit la nekk famille dañu ko jooy ba sonn da leen laaj certificat de non remariage. de non remariage. de non remariage parce que bu fekkee sa jëkkër dafa gaañu. Mm-hmm. jox la rente. nga mm-hmm. toppatoo ba am benn rente trente quarante mille. Mm-hmm. dee ko dégg nag rente yi. rente ko dégg rek gis naa benn femme bu jógee fee ñëw. <laughs> ta euh, mi ngi jógee Thiès xaw ma ñëw fi fay Dakar rente am trente deux mille. mais mu war si génn paas. aller retour mu war si génn paas dafa ñëw sa juba fayuñu ko. mu war a fanaan Dakar parce que amul nu mu paase ñibbi mais imaginons tey femme bi elle est chaque année nga déposer certificat de non remariage. chaque année chaque année boo ko deful daal lay dagg sa rente doo doo fayeeku. léegi non remariage maanaam boo amaatee jëkkër si diggante dañ koy arrêté. donc waroon bi dañ jëkkër te ñun dëkk musulman la. Mhm. dana war a sëy. ñu dagg ko te am nga njaboot. boo am nga njaboot te kee si ku sa noonu topp. am ay xale yoo xamante ni loolu rek lañ fa nekk topp ay mag. Mhm. di leen di vérifier di vérifier. indiwoo lii indiwoo lii imagine nga am mille sa benn doom wala sa ñaari doom entre temps kiiwul euh, am na quatorze ans xëy nga xëy rek am. ñu dagg vingt mille mhm, vingt mille. xam nga léegi maintenant tout est informatisé on est au monde numérique il suffit nga dugal si rek dana benn instant affaire bi day wàcc taf mhm. nekkul ngay nekk di vérifier ak yooyu. loolu moo tax moo tax caisse sociale dafa am xaalis parce que. même entreprise yi mel ne tout est automatisé da ngay vi da ngay def virement par force da nga leen di verser xaalis par force moo tax loolu dañ koy dund mu lu metti ci les femmes. léegi ki nga xamante ni Mamadou dafa euh, ñàkkee bakkanam ci son lieu de travail. Mmh. comment ça se euh, accident de travail la. encore accident de travail la kooku. foofu naka lay demee. dañ koy dafa ñàkk bakkanam dañuy def nii déclarer ko caisse. Mm-hmm. caisse def constat bi. bu ko déclaré ni ko def nañ constat bi ñàkk na bakkanam après femme bi veuve la. dañ koy jox rente comme comme ñu lay. a exceptionnel bu fekkoon sa sa jëkkër sax da doon mhm. ñoom bu ñuy calculer sa trente mille francs boobu la ñuy calculer. daal la koy fay te te somme dérisoire yoo xam ne tey bu la ko waxoon fii da naan déedéet. day somme yoo xamante ni doo comprendre teg si encore moo wax la madame da ngay feebar. Mhm. nekk accident de travail man tey ma doon liggéey liggéeyatuma. exactement. maa ngi nii to an sama njaboot léegi fu ñuy fajoo ku leen di faj amoo benn prise en charge boo accidenté day am séquelle d'accord nga. Mhm. boo demee ba temps benn instant nga feebar. mais qu'est-ce que tu vas fooy fajoo da ñëw benn médecin moo nekk caisse sécurité sociale. Mhm. amul infirmerie amul dara. man ay ay maxa wax na ne ma ni ma. Mm. xaalis caisse de sécurité sociale suñu ay anciens moom lañ tabaxee CTO bii. CTO bi waaw hôpital man ay mag ñoo a ko wax. Idrissa Pouye waaw Idrissa Pouye ma xaw ma nag mais mag ñu ma toog ne ma ñun fekkoon na fi ñu jël ko après si tu veux mën nga demander monsieur Faye. Mm-hmm. moom xam naa ISRA waaw Mamadou Faye mu ma gën a expérimenté dina la si mën a wax. moom lañ tabaxee hôpital moom maanaam caisse de sécurité sociale am na xaalis. mais joxuñ ko war a jox joxuñu ko ko war a jox joxuñu lu ñuy bénéficier wu si. te ñu ngi nii toog ba léegi ba sànq amuñu fu nu jëm mais dama lay wax léegi boo feebaree fooy fajoo sa jabar fu muy fajoo yow nga nekk di liggéey am prise en charge am lépp di liggéey sa feebar jabar bu feebaree nga xëy def accident. sa lépp dagg nga xëy sa lépp dagg nga xëy taxaw di liggéey xëy benn jour employeur bi génnee la en douce xam na lay def les employeurs. Mm. du la dàq de du la defal licenciement. Mm. ay négociation la lay defal ba nga génn. ñu ne dina defal nii defal nii nga def nii boo génnee. fàtte nan la. pare nañ si pare si yow. léegi accidenté du travail bi dina am euh, pension ah, euh, de retraite. waaw bu fekkee dafa dem retraite. bu fekkee dafa tombeek mu dem. mu dem retraite boo demee ba tomb retraite di nga am sa pension. maanaam da jot sa rentre ba keroog nga am nga doog a jot sa retraite. déedéet rentre bi c'est toute la vie. tout la vie waaw. rentre bi moom léegi pension bi ci ba ci ci ci ban condition nga koy amee. Euh, kon pension maanaam ki ki ñuy fay retraite waaw comme ku ñuy fay retraite rek. foog nga am 60 ans. Euh, pour pension comme tey tey jii yow foog nga am 60 ans. pour ñu mhm. mën la fay sa retraite. waaw tant que 60 ans kenn du ma fay sama retraite. mais su ma tee danañ la ko fay. bu fay bu metti bu danañ ma ko fay. ak plus rentre bi. waaw day nekk kon day nekk deux kii loolu moo indi sax. Mhm. caisse de sécurité sociale boo xoolee ñu boole ko ak IPRES. ak IPRES moo tax temps yi ñu xëy. Mhm. laajuñu de. waa caisse. laajuñu demandé wuñu ñu xëy benn jour rek. ñii dañ leen di enrôler dañ leen joxal ay carte ay carte maanaam. ay carte de banque nii carte baa ngi nii. Mhm. gis nga ko ñëw si bët. carte bi pour lan la. léegi carte paiement la. pour mhm. léegi au lieu nga dem kees dem di fayee ko. Mhm. léegi carte bi ngay dem banque yi ngay dem. ñu dem si banque yi ñu fay la ñu fay la boo xoolee carte bi gis dañ see bind sa IPRES. dañ ñoo boole waa IPRES. pour ñu mën dem si carte léegi dañ leen dafay nekk benn paiement non carte bi day nekk benn paiement bu fekkee da nga am IPRES. am carte day nekk benn paiement. Mhm. waaw mais waa IPRES seen bos génnagul. mais ñun comme ñun ñooy accidenté travail yi. yéen seen bos jot na génn ñoo parce que ñun kon amuñu ndey amuñu baay ñun ñoo ñoo xamante ni yàlla def na nii ñun ñun ñun ñu sommes les personnes vulnérables ah. Mhm. ñun suñu bopp la ñu jël jàpp ñu ñu def ñu ko bàyyi ñu ñëw leen ngeen ins ñëw leen ngeen testé. Mhm. carte yi yéenay testé carte yi yi. léegi waaw euh, Mamadou Faye euh, mhm. ñu ngi leen di fàttali yéen a ngi suivre seen émission sociale toute la ville en parle tey jii Ndeye Comba Moreau euh, dalal Mamadou Niang plutôt maa ngi lay jaawaleeg du Faye keneen ki chargé des revendications de l'association nationale des accidentés du travail mhm. et leurs ayants droit yéen tey jii lan ngeen bëgg exactement lan moo leen metti ci caisse de sécurité sociale lu ma si wax d'abord benn

coût bi dafa élevé euh, coût de vie bi dafa élevé et puis caisse macha allah mi ngi am xaalis donc dañu war am revalorisation des rentes waruñu ko sax demander parce que loi la léegi ñun dañ koy demandé topp leen ñu naa leen non tey suba noo xaaral na mais pour lan dañ na ko war c'est otomatique benn deuxièmement lu nu bëggoon aussi mooy accidenté de travail bu accidenté na am couverture maladie nañ leen jàppale. jàppale seen njaboot. bu ko defee ñu jël leen. même bu fekkee am na benn kii bi fi nekk benn benn benn am na ay médecins man pour vous dire def naa benn tournée. Mm-hmm. temps yi tournée Sénégal. mais foo dem si accidenté lu ñu lay ñuy ñoo am na ñoo xam ne médecin ñu ngi koy ñu ngi koy gis par 15 jours. par 15 jours. la ñu koy gis mais dama bëgg médecin bu ñuy toppatoo boo feebaree nga dem nga faju ndax boo accidenté day am ay séquelles day metti du dëgg euh, accident travail aussi dañoo bëgg aussi ñu jàppale leen surtout kees mhm. dossier yoo xamante ne dañ fay nekk yàgg yi na nga ko génnee teg si kaw taal bi yan dossier dossier ñu accidenté am ñoo xam ne dañoo accidenté war a dimbali teg seen dossier si teg si encore y a les de la Sonacos yàgg na Sonacos Sonacos bii accidenté yi fi nekkoon mhm. ba léegi amul revalorisation seen rente dañ ko war a xolaat seen rente ku si nekk lu ñu si amoon moom nga am ba léegi parce que ñoom normalement lu ñu wax mooy lu médecin yi wax ñoom ñëpp dañoo war a faatu loolu lañ wax. Hmm. parce boo xoolee ñu bari faat doon sax mais ba léegi lu ñu nekkoon la nekk. nañu faatu daal nañu jeex dañ jeex. Hmm. parce que da ngay xool ba mel ni ne ni parce que bu nekkoon sa mbokk doon na na jeex parce que mu nga toog liggéey sa frère wala sa mag accidenté mais dafa metti da ko war di ko toppatoo da nga ko waroo ko bàyyi naan na jeex yooyu yëpp. yaakaar naa ni dañ ci war a dañ ci war a ñoom ñoo ko a ñoom ci war a dimbali teg si encore ñoom caisse sécurité sociale dafa ni ñun duñu organiser wu parce que dañoo bëggoon ñuy organiser suñu bopp bu ko defee chaque chaque chaque trois mois wala chaque deux mois loo xamante ni sax fii rek la ma sa am. Mhm. boo xoolee pour te dire que nu mu méttee c' est au niveau seulement au niveau de la caisse de la gars di fekk par trois mois par trois mois. le président Macky Sall ba mu mujjee ñëw sax. Mhm. jël na les kii la euh, retraités di leen fekk par mois. revaloriser seen euh, seen seen seen seen seen seen IPRES seen seen seen seen kii bi am seen pension. Mhm. mais ñun caisse de sécurité sociale rek ngay fekk par ñetti weer. imagine ñetti weer. yéen da ngeen bëgg ñu leen di fay mensuel. par mensuel paiement mensuel ngeen bëgg. ñoom nee naan bi il faut nga am benn IPP pour nga def ko te am yoo xam ne seen mensuel boo ko dajalee. ak seen trimestre am yoo xam seen trimestre moo ëpp fuuf seen mensuel. Mm-hmm. donc ça veut dire que dañ def par mensuel teg si encore yooyu yëpp ay jooy loo xam ne ñun dañu koy jooy teg si ñu respecté ñu respecté aussi cote yi parce que am na benn cote boo xamante ne cote 89 la mooy cote boo xamante ne war ñoo dagg suñu rente. Mm-hmm. suñu xaaj kenn war ko dagg dañu dañu euh, rente bi c'est insaisissable et in insaisissable lañu wax waroo ko dagg benn. benn benn yoon. mais imagine madame sunu carte yi. Mhm. nga dem dem di fayeku waa ji mi ngi am trente quatre mille cinq cent boo demee léegi di fayeku si gab bi xam gab bi ñaa la jox. Mhm. trente mille quatre mille cinq cent yi dañ la ko dencal. dañ koy dagg dañ koy dagg ñii dañ la koy dencal ba bay di ñëw. yow koo xamante ne par ñetti weer lay fayeeku nga koy daggal quatre mille cinq nga koy denc loo koy dencal te yow da nga ne rente bi kon war ko dagg te fii lan lañ dana bëgg a organiser wu chaque mois ni dagg suñu rente cinq cent cinq cent ñu organiser wu ko suñu association wala dara ñoom ñu ni non non kenn war ko dagg est-ce que loolu yoon la du yoon donc loolu yëpp dañ koy dénoncer man chargé de revendication yooyu. dañ ma ko jox ay yoo xam da nga ko war a porter pour gars yi mën si yu dimbali. mais mais naka ngeen fas yéenee def pour seen revendication yooyu ñu déglu leen parce que daan ngeen fi yëngu-yëngal mais temps yi a ngi seral. déet seralun de. dafa hmm. nekk euh, ñoo xamante ni macha allah dañoo am ay kilifa. te seen association bi dafa am ay comme le président Tidiane Sow. Hmm. dafa nekk personne yoo xam dañoo am valeur dañoo am lu nu gëm lu bëgg Sénégal. Hmm. Euh, mais nag. Euh, madame dama lay wax fii tey si antenne rajo lay wax. Mm-hmm. jot na liy jot dafa jot souffrance bi pré accidenté yi doon souffrir au niveau du Sénégal jeex na ndax on va s'organiser. Mm-hmm. nous sommes des jeunes man boo ma xam ne dama mag on va s'organiser def lu ñu war a def pour que incha allah ñu toppatoo ñu bientôt dinañ organiser wu xoolaat. da ngeen dem buntu caisse de sécurité sociale wala. du non euh, on va les. parce que a même temps doon nañ loin de là sax. Hmm. parce que avec le numérique. Euh, mën na pétition en ligne pour demander le départ du la caisse de sociale. kii Racine Sy. non kii la euh, Assane Soumaré. Hmm. Racine Sy c'est le PDG. c'est le PDG c'est le PDG adjoint. Racine Sy c'est pas le PDG c'est le PDG adjoint. adjoint le PDG bi mooy Mademba Sock ñoom dañu mel ni ñoom nekkuñu kees. te pourtant moo leen waroon gën a toppatoo en tant que syndicaliste. en tant que syndicaliste et puis teg ANATRA mu ko moom moo waroon gën a toppatoo. Mhm. moom mooy PDG bi adjoint mooy mooy moom moo waroon moo waroon gën a mën a yiir mais ñooñu aussi dinañ si ñëw si ñoom parce que ñoom ñëpp incha allahu rabbi ñun ñëpp dinañ xool nan la mën a def def ay pétition def ay ay ay ay ay réunion le pris rapidement possible s'organiser pour mën a attaquer pour ñu def révision surtout. code de sécurité sociale. kon fas yéene ngeen yëngu yëngal. ba ñu euh, euh, euh, jox leen seen àq ak yelleef fu mhm. ñun. ñu ngi doon sacrifier sacrifier suñu bopp ba pare. Mhm. mais ñuy ñëw le gosse qui vient de faire son accident aujourd'hui dañ ko war a jox cër dañ ko war parce que code de sécurité sociale bi imaginez depuis 1976 dañ ko gëj a teg assemblée nationale ana député yi xanaa ñoom du ñu toog sax xamuñu assemblée ne xam nañu accident du Sénégal. 1966 dañu gëj a wax waxu problème accident de travail au au Sénégal. da ngeen bëgg ñu yeesal ci dara. da dañu war a yeesal lépp lu ñu si yeesal dañ ko war a refondre teg ko. xoolaat ko tëggaat ko. au niveau en France chaque deux ans dañuy def code de dañuy def révision code de sécurité sociale chaque deux ans en France mais fii Sénégal rek te plus grave mooy ñun suñu biir dañuy on joue dañuy dañuy dañuy fo. mi yow di man di keneen parce yaa ngi liggéey. Mm. keneen ku danaan chaque travail est accident en sursis. en sursis ku nekk mën na daal yow le cas de Makhari. monsieur Faye nee na yow mos ngeen seeti Makhari. oui Makhari. yàlla na ko yàlla yërëm. Hmm. gaañu na woon naa ko waaw euh, te ñaari loxo yi courant moo ko lakkoon pratiquement. mais imaginons Makhari ba mu demee caisse de sécurité docteur bi daf di ko jël en charge. parce que nee na courant bi nee na euh, feebaram bi ça n'a rien à voir avec son accident. accident bi ni méttee. accident yow gis nga ko. Hmm. nu mu mujjee après dee na nu mu mujjee caisse de indi fa cent mille xëy dagg rentram ana njabootam indi fa cent mille francs après dagg rentram dagg rentram ana rentram saye ana ay doomam le plus important aussi c'est les enfants qu'est-ce qu'ils vont devenir ces enfants xale yi ni li mujjee léegi bu nu amul taxaw nan la ñuy def boo amul soxla su la mën a téye nan ngay def léegi dañuy xool nii rek di bàyyi les accidentés c'est comme dee naan ba pare waaw bokkatuñu ñoom bokkatuñu daal. génn nañ ci système bi génn nañ système bi. ils font plus partie du système tax dañu war a fas yéene ñun dañu taxaw. Mm-hmm. dañuy xeex ba ñu jox ñu suñu yoleef te te te euh, mois bi passe le vingt neuf mai bi def nañ ko. Mm-hmm. ba ñu joxee carte yi ñun ñëw nañ kees dem seet directeur bi. directeur nous a promis des T dina indi ay TPE mooy ay ay ay appareils yoo ni pour rentrée yi léegi même bu dee trente quatre mille di nga jot sa trente quatre mille ba léegi gisaguñu appareil yooyu donc ce qui veut dire que dañuy organiser wu xeex incha allah pour que le plus rapidement possible ku nekk ñu jox la say àq bi ak sa yele ak sa yele euh, temps bi jeex na sax une mhm. dernière question d'actualité mhm. euh, di dund bu cher bi nga xamante ni actuellement mhm. moom la ñëpp constaté maanaam lépp dafa dafa yokk am na prix yoo xam ne sax dafa dafa doublé wala mu triplé euh, yow en tant que sénégalais ban jàngat nga ci am ci jamonoy crise covid 19 nga xam ni chômage bi ainsi de suite liggéey jafe na en tant que sénégalais li mu siy wax daal mooy sa pays moom la gouvernement daf ñu war a dimbali dafa war a dimbali les accidentés de travail ndax comme on dit ils font partie des personnes vulnérables dañ leen war a jàppale dañ leen war a yërëm dañ leen war a yiir gouvernement bi xam na ni metti na situation bi metti na gouvernement bi gis na ni affaire yaa ngi yokk te boo xoolee dara yokkuwul su côté accidenté yi lu nu mënoon mënutuñ ko au contraire ñoom lu nu mënoon day gën a wàññeeku au contraire pas yi noonu def par exemple di mën a def yenn affaires yi ñoom seen côté day wàññeeku am ñoo xamante ni sax ñu naan comme tey ak euh, affaire baa ngi yokku bon attends ku mel ni yow xam nga vous êtes jeune mën nga ni xaar ma dem seeti def benn formation pour mm. après nekk chef de rédaction wala dara quelque chose comme ça mm. mais ku def ba accident la nga mën loolu mënu ko mm. kooku au contraire situation bi day gën a day gën a wàññeeku loolu la loolu laa bëggoon aussi pour loolu mu wax ko teg si encore lu may terminer aussi di wax ni inspection du travail inspection du travail ministre du travail na dimbali ñu ngi leen di sonal di leen dàq dans les entreprises ñu ngi leen di utiliser parce que c'est des personnes vulnérables am na de personnes mal intentionnées yi utiliser ces accidentés du travail du parce que xam na ne mel na ñun melatoon pour régler seen ay propre compte des syndicalistes yu koy def dañu bëgg ñu dimbali ñu pour que ñooñu ñu jàppaleen ñu yërëm leen ut benn service ut benn service spécial pour les accidentés parce que euh, tey caisse am na service de suivi. Mm. Euh, service de de prévention.

nan bàyyi xel les accidentés parce que on presque on est presque huit mille ans les accidentés au Sénégal. les accidentés du travail. huit mille huit mille kon tuuti officiellement wala ci seen association. suñu ah, non suñu association ah, on est presque cinq mille. mais offi waaw officiellement. on est presque ëpp na sa huit mille ak ñoo xamante ni déclaré wuñu mais loolu déjà rek kooku ku tuutiwul war nga mën a mën bàyyi xel ñooñu te ay kilifa lañ ñoo si nekk ay mag te ay mag lan nag mais am na xale yi si nekk xale yi mel ne man ak ñeneen jóg nañ pour xeex pour que fu ñu war a def grève ñu def ko. entreprise boo xamante dafa jël ay nitam dafa jël ay employé am dàq leen ñun on va s'organiser bu nu waree dem si bunt entreprise bi woo leen woo presse bi woo ñëpp ñu ñëw ñu def suñu marche parce que militaires yi ko def gënuñu ah. Hmm. gis nga leen. Hmm. te am na militaire ah, lan mooy différence militaire invalide ak travail invalide yaram du yaram. y' a pas pas une grande y' a pas de différence. parce que nit nit leen danoo am ay jabar am ay doom ñun tamit nit leen danoo am ay jabar am ay doom ñun tamit nu mu demee di défendre Sénégal ñun tamit noonu lay défendre di liggéey loo xamante ne c'est pour les Sénégalais c'est la même chose voilà ñu ngi koy remercier bu baax a baax Mamadou Niang nekk chargé des revendications de l'association nationale des accidentés du travail et leurs ayants droit ANATAD kon ñu ngi koy remercier ci disponibilité am di remercier tamit euh, ki lee di Mamadou Faye di remercier Mamadou Diaw Diallo nekkoon ci cabine technique bi di leen remercier yen suñu auditeurs yi ànd ak ñun chaque samedi de 10 heures à 11 heures Ndeye Comba Moreau di leen wax samedi prochain 10 heures jàpp 11 heures ci beneen émission euh, beneen thème ak euh, beneen invité émission bi mën ngeen ko suivre ci suñu euh, chaîne YouTube Rewmi officiel wala ci suñu euh, site internet www.rewmi.com